Sénégal sénégalais moo tax TikTok bii képp koo xam ne yaa ngi ci nga bàyyi woon sa métier wala sa jàng pour topp TikTok bi defal ni man wàññi ko soo ko mënta bàyyi ndax ñi ngi koy defal ñu ci bëri jaruñu ko xam nga lu tax xam nga amet mii ngeen di joobee tey amet amet amet amet xam naa ko de gaa mais man du ma ko setaan ndax képp ku ma jàpp ne li muy def baaxul muy weer doomu aadama man jàpp naa ne baaxul man du la seetaan mais amet tey niveau bi mu toll ba ñeen ñépp ngeen di ko waxtaanee kan moo ko fa yóbbu italien yi français yi wala américain yi sénégalais yi te na leen leer ne téeméeri junne ameen ñu ngi senegal amaguñ passeport seen passeport bu ñu ko tamponné ba ñëw Europe di ngeen gis lu gën a pire amet ndax yéen bu nit jógee bëgg kontam yéeg muy saaga ndey di uñu sutura yéen a koy may doole. léegi nag ay bangalaam ngeen neen dafa génn ngeen def fête nationale parce que da doon uñu sutura ñëpp kontaan di jóg yéen yéen fan ngeen far fi amee toll kan moo ko fa indi. xam nga Sénégal dafa mel ni maa fa ëpp problème wala bokk naa ci ñi ko fa ëppale ndax su ngeen seetloo lii ñu koy def du benn du ñaar du ñett du ñeent mënu ma fay toog di ko compte bari na. xam nga euh, man dafa am dama am problème problème bi ma am mooy man mënu ma seetaan fi ñuy toroxalee doomu aadama bu ngeen seetloo Ousin jamono yee ci ginnaaw demoon na fi kër Aziz Ndiaye xaw ban kër demoon ñu teg ci bunt bi dama génnoon xeex gajjante lu ne daj naa ko ci foofu noonu wax lu nekk mais bu yàggee Ousin lay waxal parce que dafa na quand le respect il faut quitter la table xawma lañ koy wax ni tubab di prononcer euh parce que avait capito, Lolo am solo lima bëgg wax manam Ouzin man dotuma wax ñi lay toroxal man bu yagge yow lay waxal. parce que yow comme ma joye, wala fuma ma gisee ñu toroxal la yaay sama yaay jini nii yaakaar y'a yow ku jur yëram Ouzin mi defe na yow geste bi nga def ni mais ni kuy daw daw dem wala kuy daw nit. non ni mu ma méttee billaahi wallaahi wa tallahi suma mënon na bëtt caméra bi fekk la fi nga tok ma gajj ba matta dá uma def parce